foofu mooy fi gën a bari ay nit mooy fi gën a euh, jafe kon sëriñ bi nee foofa itam mi leen ci soññ leen ci ñaax ñu fexe ba siyaare yëpp jàll te xam na ne jubaay Sëriñ Tuubaa kenn du fi ñëw lor di la waaye li ñu war a sàmmonteeg àdduna ñu fexe ba sàmmonteeg moom